dafa yomb li tax ma wax loolu mooy nii député yi mënoon nañu toog waxtaan xool naka la ñuy def ba nga xam ne réglement intérieur bu assemblée nationale ñu ko gën yeesalaat mettre ko à jour ba nga xam ne coow li yëpp mënoon a ñàkk. ki nga xam ne moom mooy euh, premier ministre Ousmane Sonko moom it mënoon a toog di xool noppi. bàyyi ki nga xam ne moom mooy njiiti réew mi di président Bassirou Diomaye fay mu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñooy député yi ndax euh, fu ñu toll nii réew mi soxla na dal soxla nañu jàmm ci réewu Sénégal soxlawuñu crise institutionnelle ci biir réew mi loolu yëpp mën na ñàkk ndax euh, war nañu bàyyi xel gën a taxaw ndax am na ay priorités yi fi ne loolu moo war a nekk euh, suñu soxla.